mbokk yi safoo Equivox TV euh, mbégte la ñuy am di janoo ak yéen di leen jaajëfal bu baax a baax a baax topp bi nga xamante ne yéen ñu koy topp euh, tey nag euh, ku nekk xam na ne actualité bi mi ngi lëmbee réew mi gis nañ tamit li nga xamante ni mooy jaxase réew mi xam naa tamit tey suñu invité bi nga xamante ne dalal nañ ko muy Cheikh Gueye bokk tamit ci taxaw Sénégal nekk aussi maire de Dieuppeul-Derklé xam naa tamit dinañ xuus ci waxtaan bi mu indi ci ay leeral bu baax a baax a baax waaye laataa loolu dañ koy bàyyi mu nuyoo ak euh, internet yi koy seetaan à travers Equivox TV monsieur le maire nuyu nañ la. maa ngi lay fay di nuyu bu baax euh, internet di nekk. Euh, Equivox mhm. di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu. ñaan yàlla waxtaan wi yàlla na jur njëriñ pour ñun ñëpp. amin incha allah monsieur le maire bala ñoo dugg ci waxtaan bi dañoo gis yaa ngi programme benn affaire boo xam ne le 30 la ndax mën nga ci indi ay leeral. waaw xam nga le mhm. dañu fas yéene. woo askan mm-hmm. askanu Sénégal mm-hmm. askanu Ndakaaru rawatina askanu Jëppal pour procéder au lancement des travaux d'aménagement des allées Khalifa Ababacar Sy mm-hmm. c'est le 31 di àllarba à quatre heures ci place ndax bis na euh, bërëb boobu comme turam nu mu wuyoo sëñ Babacar Sy bés la bu ñu war a fonk mm-hmm. bërëb la aussi bu ñu war a fonk mm-hmm. maa ngi wax sànq rek ni mm-hmm. suñu wajur ba sëñ Pape Malick si yàlla na yàlla yeesal yërmande ci kawam te taas ñu ci barkeem fanam yu mujj dafa amoon yéene ñu toog gisanti ndaw ya mu yónni woon ñu wax ma ko man leen man may ñëw fekk ko yàlla def mu tawat ci tawat boobu la fi jóge ginnaaw gi ma gisaat leen ñu wax ma yéene bi sëñ Pape Malick amoon ni ma Pape Malick day ñëw fii mm-hmm. ci béréb mm-hmm. parce que béréb la boo xam fi lay defee ay lawraata bi mm-hmm. béréb la bu barkeel bérébu ñaanukaay te na mu ko fekk woon yembul jekkul jaaduwul rafetul ay raxaskatu oto ay ñuy jaay meuble ay mécanicien ay ñuy jaay ay oto maanaam lu nekk ci bërëb bu tedd boobu nga xam ne moom lañ tuddee suñu wayjur ba suñu sëriñ ba suñ Babacar Si ma rafetlu ko nag mm-hmm. yàlla def ci ayu Barthélemy Toye Dias mm-hmm. Khalifa Sall mi amoon mbébét bi mm-hmm. su am feelu ko waaye ci ay Barthélemy Dias la suñu borom tudd ñu fas yéene tàmbalee liggéey bi le trente le trente et un mai di àllarba ñaan yàlla tàmbale ko ci bisimilah rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin bërëb boo xam ne Mamadou Diop le grand maire de moo ko sumboon ba muy mucc ay mm-hmm. rafetoon waaye boobaak léegi ab diir la yàgg na donc day jaabi ñu defaraat mm-hmm. ñu yeesalaat ñu jëmmalaat ndax suñu wayjur wu tedd woon mm-hmm. kenn dootu ko fàtte mu ñëpp ci njaboot sëñ Babacar Sy lañ mhm. donc maa ngi ci woo ñëpp di ci prier ñëpp ñu waajal bis boobu màggal bis boobu ngir defal béréb bi ba mu méngóog mhm. sang bu tedd boobu di sëñ Babacar Sy aja kon euh, monsieur le euh, mi ngi woot ñëpp ñoo xamante ni rek euh, loolu ñor na leen mu nekk le 31 mai bii ñu jëm si tombanteeg mercredi ci la ñuy daal di inauguré li nga xamante mooy allée Sëñ Babacar Sy lancer travaux d'aménagement lancer travaux d'aménagement bi alors loolu am na solo ñuy dugg ci li nga xamante ne nag mooy actualité gis nga fan yi réew mi yëngatu na trop yë la wajoo na tamit dox ci diggante ki nga xamante ni mooy peut-être Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni mooy aji Sarr ñu gis ni Euh, procès bi bërki démb la ndax am na ci ay jàngat yoo xamante ni mën nga ko ci def wala ay leçon yoo xam ne mën nga ko ci tiire mën leeral askan wi ñi lay seetaan euh, naka nga gisee euh, position ñi xamante ne ñooy wala tamit mooy procureur bi. wax nga dëgg xam nga mbir la boo xam man. Mhm. ba mu waxee dëgg rek seetaanu mu ko déglu mu. ñu waral loolu. parce que amalu ma njëriñ. lu tax amalu la njëriñ. sama jaar-jaar ak sama gëm-gëm. Mhm. mayu ma may dégg wala di seetaan yenn mbir yi mm. jommal naa ko suñu mbir mais li ma dégg ci nit ñi mm. jànge ci nit ñi mooy maa ngi koy ñaw lu baax kaddu ya fa jib tumaate bi takkalaate bi mm. ci loo xam ne jaru ko ñaari jullit ñaari doomu Sénégal mm-hmm. même bu ñu seqoon am na lu gën a rafet dudul di téefant mhm. ak di wax yenn kàddu mhm. te man ku jigéen ki xaw ma ko dégg rek laa ci am mais ki góor ki di Ousmane mhm. suma rakk la ma xam ci moom rek lay seet muy baax muy yiw muy tedd muy julliti muy fonk doomu aadama jamono yi ñu teg ko lu métti lu diis natt yu bari na te métti ma mm-hmm. koy masaw te di yeesal sama solidarité ci moom te di waar ci politique bu Sénégal ñun nekk ci làmb politique mm-hmm. et ku yabu yërëm ñu de ndax li métti liy dalee ak li ñuy teg yëpp ñu ñun lañ koy teg te li ñuy dugal ci politique muy dindi métti métti bi mhm. dindi jafe-jafe yi mhm. dindi ina inégalité yi saafara mhm. jàngoro askan waaye buñ ci wëlbatikoo ñun ñuy jublu ci loolu ñu ñuy teg ay nattoog ay daag dama ni ëpp na te lu ëpp pour kon da ngaa jàpp ne monsieur le maire nga xamante ni yéen a féete ci euh, politique bi waruñu leen a topp euh, ci waxuma loolu dama ni dañu dañu dañu dañu ba lu ñu sax ñu ne def nañ ko taxal gis nañ fi ay yooni yoon suma xarit suma seex xalifa Ababacar Sall lañ ko taxali tiiñal ko teg ko mhm. ñun ñëpp xam nañu ni dara am ci mhm. waaye ak ak bu rafet ci réew mi moo ko yóbbu mhm. Seydina Sonko mi bari na lu ñu teg ci kawam dara amut mais lu ko teg mooy yéene ak gis-gis mu am ci réew mi maanaam day mel ni suñu réew yi rawatina Afrique bëgg sa réew am yéene jiite sa réew day nekk musiba day nekk di feebar lu loolu ci jaamu yàlla la dañ ko war rafetlu réew mi dañu war toll ci nit ñi di wax seen xalaat ak seen yéene seen programme lan lañu namm ci réew bi ñu leen joxe mais pas kii du ko fi nekk kii du ko présenté dina ko teg di loolu rafetul jaaduwul ñun ñëpp ay aji gëm lañu mm-hmm. nañu rafetal mbir mi mm-hmm. politique lu sell jaam yàlla mm-hmm. kon nag jarul ci teg yenn natt yi Ah, jërëjëf monsieur le maire ndax jàpp nga euh, Ousmane Sonko dina bokk ci li nga xamante ne mooy euh, élection présidentielle yi ginnaaw bañ ko daanee euh, ci digganteem moom ak ki nga xamante ni mooy Mame Mbaye Niang daan ko 6 mois avec sursis ak amaan ko 200 millions ginnaaw ci loolu ñu ngi waajalaat li nga xamante ne mooy le premier peut-être verdict bi mën na nekk daan yoo xamante dañ koy tegaat ci ndodd Ousmane Sonko ndax jàpp nga ni yow en tant que xaritam peut-être en tant que frère am ndax jàpp nga ni war na mën a présenter wu ci élection 2024 bi. loolu du mun noo koy wax mhm. d'abord pour mu nekk candidat moom ci boobu mu naan dinaa nekk candidat incha allah. ndax Macky Sall du ko du ko faagaagal à que mu bañ nekk. Euh, waaye bu ko bëggee aussi réew mi dafa am nu mu tëddee. Mhm. te fa ñu war a jaar pour daganal sa bokk ñooñu ñoo ci àdd. Mhm. réew mi aussi ànd ci ndax gis nañu Khalifa Sall en deux mille dix neuf. biñ koy xaj mu bokk ci élection yi dara xajut ko seeni i pexe rek moo tax ñu ni mënta mënta nekk candidat lii aussi bu ñëwaatee te ñun defoon nañu après Khalifa Sall dootul amati mhm. mais du ñu mën lu effectivement xool yan anam la mën jëfandikoo pour mu nekk candidat mhm. bu waxtu wa jotee mhm. du di xool kan muy nekk candidat yan yan anam ngeen préparé ndax gis nañ fi comme li nga wax léegi Khalifa saal ba tey mujjul fenn euh, tamit euh, Karim Wade aussi pareil donc Ousmane Sonko nga jàpp ne buñ ko naree euh, bañ a boole ci li nga xamante ni mooy élection yi jàpp nga ni am ngeen ay moyen wala ay loo xamante stratégie boo leen teg pour moom aussi mu mën a bokk def force. li ma dégg ci yeewi ak li ma am ci yeewi yéene ci yeewi ak bëgg ko mooy ñun foogoon nañu après ab euh, Khalifa Sall plus jamais ça tey mu ñëw tegu ci kaw Ousmane Sonko. Mm-hmm. mais est koy nangu rek dem comme ni Ousmane di wax il faut résister parce que ñun ñëpp peuple bi moo tax ñuy yëngu mm. te peuple bi moo ñu nëpp mm. bëgg-bëgg peuple bi moo ëpp solo donc duñ ko nangu et daañu user tous les moyens yi nga xam ne légaux mm. à notre disposition pour refuser ça d'accord euh, jàpp nañ ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo nekkoon di résister peut-être ñooy nekk ci terrain bi ko ci mel ni euh, Karim Xrum Xax ay Ousmane Sarr activiste yi ñi nga xamante ñu ci ëpp doole peut-être teg nañ leen loxo lan ngeen préparé encore. mais mooy li ma la bu nekk résister moo ci mën lii du lu bees. dafa ñëwaat rek waaye du lu bees mm. yàgg yàgg ci réew surtout ci réewu Afrique mm-hmm. ci nekk rek mooy xeex ba loolu di dañ na ci yéen nga xam ni Ousmane ak ñu mel ni moom ñu moom xalifa moom la ñu amoon pour deux mille vingt quatre plus jamais ñuy jàpp nit ci yu mel ni am na ñu naan ndax euh, démocratie àndul ak loolu d'accord am na ñu naan euh, yéen seen biir yeewi askan wi jaxase nañ leen maanaam réeroo am na seen biir ku ci mel ni Barthélémy Diaz nga xamante ne jegeen nga ko trop euh, ber na yoonu boobu Ousmane Sonko aussi ak Barthélémy Diaz jaxase nañ leen à ce que instant bi ku nekk mi ngi weerante ku nekk mu ngi waxal li nga xamante ne xamal nga ko sa morom lan nga mën a wax ci loolu. non jaxasowuñ leen weerantewuñ am na lu xew ci jamono Ousmane wax na ci xalaatam Barthélémy wax na ci xalaat nañ ko gisee noonu ñaari doomi ndey lañu. Mhm. la leen boole kenn mënu ko yàq. démb ak bërki démb. Mhm. doon nañu jëflante nekkoon nañu benn. xëy jamono demoon na ba kenn ku ci nekk war nga wax. ta vérité wax nga ko. Hmm. mais nañu weesu leen jàll ci leen. kon bi ñu ngi war seen jàmm ñu ngi àndaat ñi ngi déggante. waaw. ah la moo waral euh, mouvement F24 <coughs> biñ koy lancé euh, gisuñu fa ki nga xamante ne mooy Barthélémy Diaz. gisuñu fa Barthélémy Diaz gisuñu fa Ousmane Sonko jamono boobu dafa fekkoon Barthélémy Diaz nekk mission bitim réew. Hmm. Ousmane Sonko nekkoon ci meeram Ziguinchor. Hmm. mais ñoom ñëpp. signature F24 lañu. alors gis ñu fa Barthélémy Dias gis ñu fa Ousmane Sonko <coughs> accepté lañ la waaye gis nañ fa ki nga xamante ni mooy xalifa euh, Sall tey tamit ba mu yéegee ci kaw podium bi maa ngi fa woon dañ ko doon yuuxoo ba sax euh, ci la daal di affaire yi daal di commencé euh, di tas. waaw dund naa keroog maa ngi fa woon xam nga loolu mën na ci politique. mais du woy xam nga dafa sell nit kenn du ko yooxu. nit kenn du ko yuuxu mm-hmm. tedd na tedd goo xam kenn du yuuxoo nit kenn du toroxal nit mm-hmm. kenn du rusloo mm-hmm. surtout sa kilifa mais ña ko doon yuuxu ay gone lañu xamuñu même bu ñu xamoon la ñu war a def defuñu ko luy ndey ñuy yuux Khalifa Sall ak lu Khalifa Sall mu leen def bañ koy yuux. sorti Barthélémy Dias moo waral peut-être suñu yuux kon xam nañu Barthélémy Dias. waaw léegi bu waa këri Barthélémy Dias wala keneen est-ce que loolu lu rafet du ci réew hmm. ñaari nit ñetti nit wala mbooloo mën mais yuuxu dafa dul wàllu gorso hmm. dafa yiw donc loolu man koy condamné hmm. rafetul jekkul jaaduwul ci àdduna mën nañu bañ a déggoo mën nañu am ay contradiction mais ñu gérer ko ci discussion ci débat mm-hmm. mais yooku nit surtout kilifa Khalifa Sall quoi qu'on puisse dire kilifa la ci réew mm-hmm. am na jaar-jaar nekkoon na président yooyu mm-hmm. ëllëg yàlla mën na def mu nekk président de la république du Sénégal maa ngi fàttaliku ci jamonoy Abdou Diouf sax ba muy wax baab bu rëy ba ca Thiès ay xale ko doon waxu donc yóoxu daal mooy réeróo bi ma lay wax monsieur le maire. dafa mel ni ñëwaat na ci réeróo bi ñëw na. mooy ñàkk xam bu réeróo la de l' ah. et c' est de l' irresponsabilité. parce que ku ay jéego yoo xam tey ji képp ku ni ci yeewi nga bokk. Mm. da nga fonk Ousmane Sonko da nga fonk Khalifa Sall da fonk Déthié Fall mm. da fonk Aïda Mbodj ak kilifa yi nekk ci yeewi yëpp. kenn ku ci yuuxu dafa mel ni yooyu nga yuuxu ñoom ñëpp nga yuuxu et laata ñu yuuxu ko am na ku yéeg ci kaw tribune mhm. ni jokkoon ak Ousmane Sonko nee bu kenn yuuxu kenn mhm. mais ay doomu Kocc Barma la waxal mhm. loolu message bu am solo la ku ne mën nga ko jàngate na nga ko gis mais yuuxu daal baaxul moom alors ndax mën nañ xaar ki nga xamante ne mooy Khalifa Sall mu bokk ci élection présidentielle. am nañ ci yaakaar am naa ci yaqin bu baax ni yàlla dana def Khalifa Sall bokk ci élection. Hmm. ndax waru ci woon génn sax bañ naan dana bokk ak du bokk. mais amnistie bi euh, euh, accordé buñ ko pare. ki ko ci ki ko ci génn woon. Hmm. bu amee yéene delloowaat ko ci du ñu mel ni ko ay cër. Hmm. moo xam amnistie la moo xam lu mu doon. mais réew mi ci boppam moo laaj Khalifa Sall bokk ci ay élection hmm. et eh, looloo tax li nga xam ne moom la ñuy wax dialogue te mu nekk baat boo xam ne ci suñu réew dafa chargé négativement hmm. ma ni même vocable la boo xam ne buñ ko mënoon changé tëgge ko noonu au lieu que le président de la république di wax dialogue man j'aurais parlé dinaa wax concertation nationale ndax dialogue du entente dialogue du diri dialogue lu ñu ñu toog nga wax sama xalaat ma wax sama xalaat nga wax sa xalaat ñu wax ba dégg réew fu mu toll ku ko wax ku ko waxul yëpp jàmm moo am ci réew mais pour jàmm am du ñu jàmmarloo pour jàmm am foog ñu toog ñu waxtaani leen c'est tout à normal ndax nekkul looloo waraloon euh, président Macky Sall woote dialogue euh, tamit yenn ci ñi yeewu askan wi daal di bañ. est-ce bañ xëy na am nañu am nañu lu tax ñu bañ mais ñeen nangu aussi nañ leen nangul seen nangu ndax ñun dañuy jàpp ni mm-hmm. yàgg nañ ci réew macha allah mm-hmm. réew dañ koy pincu mm-hmm. réew dañ koy toogee di waxtaan mu nekk na waxtaan lu sell waxtaanu góor ak moromu man loolu laa gëm ci réew mm-hmm. Mm-hmm. ndax bu ñu waxtaanul tey mm-hmm. daañu waxtaan ëllëg waxtaan mu tudd waxtaan waxtaan waxtaan mu tudd li nga xam ne mooy njariñu réew mi mais boo ko fa waxee bu ñu ko tënkee jàpp ko mu jàppee loolu loo nga xam ne njariñu réew mi ñu bañ ko jëfe bu ñu waxtaanul dañu réew mi te bu ñu réeroo jàmm bu ñu réeroo jàmm dam ci réew mi mm-hmm. ndax yéen nga xamante ni yéen a yor kuréelu yeewi askan bi ginnaaw boo xamante ni daal dinañuy kale ki nga xam mooy président Ousmane Sonko du bokk ci présidentielle yi am ngeen keneen koo xamante yéen a ngi koy teg samp ko ngir jàppale ko pour mu nekk président non Ousmane Sonko buñ ko suulagum kenn suulu ko est-ce que ko jëm ci parce que le premier bi mun na métti ci moom nañu àgg nañuy nañu ñaan yàlla fekki ak tal ba premier ñu xool lan ban décision du ñu am bu boobaa aussi bu ñu jëlee décision ñun ci biir Yewwi daañu xool waxtaani ban décision la ñu war a mën a jël pour ñu koy jéem a faagagal ñu bañ ko faagagal tollooguñ ci yàlla ñu ci yàlla yëpp. amiin monsieur le maire ñu gis ni euh, sonn nga nag euh, pour ñu bañ a yàgg li nga xamante mooy entretien bi dañuy daal teg suñu question ak question bi may waaj a ñëw xam naa tamit pour te c'est juste que gis nañ monsieur le maire Cheikh Gueye yàgg na lool ci maire jëppal bi lan mooy seen secret lu tax nga yàgg fii parce que gis nañ ni yeneen maire yi à chaque fois élection bu amee ñu changé maire yow nag gis nañ ni macha allah yàgg na fi yàlla na fi gën a yàgg lan mooy secret euh, monsieur le maire. suma secret mooy gëm yàlla suma secret mooy su ma Touba suma secret mooy fonk doomu aadama nawlanteeg ñu ma dëkkal di leen seet aw ma alal du jox mm-hmm. mais am naa jàmm am naa yéene ak xalaat bu rafet loolu tax donc loolu aussi maa ngi koy déglu bépp doomu aadama ñun ay sénégalais lañu amuñu feneen fu ñu réew mm. nañu wegante nañu fonkante nañu bëggante nañu jàppalante te yàlla tax ndax maa ngi naan la jullit laa mm-hmm. dañu wax ci alxuraan ni ngir sàkku xam-xam jar na dem ba alxuraan ko mm. waaye chinois yi seen bopp ni la li ñu jàpp ni mooy àdduna te mooy alal mm. du àdduna ndax alal mën na jënd montre waaye mënul jënd waxtu alal mën na jënd lal waaye mënul jënd nelaw mm. alal mën na jënd garab waaye mënul jënd wér gu yaram alal mën na jënd téere waaye mënul jënd xam-xam mm-hmm. li jarawut mooy xam-xam bu nit di wut xaalis nga wutal nit ñi te man bu jàmm ame maag nit la bu safaan bi amee maag nit ñi la bu neexee maag nit ñi la bu naqaree maag nit la bu nooree maag nit la bu nawetee maag nit la bu tawee maag nit la bu wóoree maag nit ñi mais nit moo tax nit ñi di ma delloo lu ma leen jox mm. te joxuma leen dara nag cofeel ak biggee rek laa leen ak gëm yàlla ndax bir na man fàllu boo gis follee koo mais bala ngaa follee na rafet rek mm-hmm. na rafet man daal ci tànk mag ñu baax yaa kilifa yi foofee laa bëgg jaar yonent yi jeex na wàllu yi dem nañu mm-hmm. waaye ñun nañu jéem a taataan ci jukki yu rafet xam nga suñu njaal benn wax yaa ngi naan ma am na looy waajal man la rëy mm-hmm. lii bërëb bi ñu tuddee suñu maam sëñ Babacar Si mm-hmm. yal na yàlla taas ci barke mais ñooñu waruñu leen tudd rek di fett mm-hmm. dañu war jànge ci ñoom nañu meloon jikko yi ñu làngoo woon ñu jéem a roy pour mel ni moom naam mënuñoo mel ni ñoom mais ñu jéem a te topp seen jàngale ak seen digle buñ ko defee rek jàmm ni hmm. xam nga wolof dafa ni ganaar du topp kii taxani bàyyi kii ni ki yorum pet hmm. te mooy dëgg nit ñi xam nañu keleen leen di nax ak ka leen di nax xam nañu keleen leen di wax dëgg ak ka leen di wax dëgg hmm. loolu la tubaab di wax les marchands d'illusion ñoo ñëpp France ana ñi fi nekkoon daan jaay alal tey gisatoo leen déggatoo leen ana alal ji ñu yoroon te keroog yomal xiyaam bu fi nekk da wax suñu borom fan nga ko jëlee ak fan nga ko dugal lu jër a xel te dama gëm ni yomal xiyaam jomb naa ëllëg ma fay tasee ku ma bokkal commune mu naan ma ba nga nekkee maire de nii ak njombe njombe bii yaa lu may wax suñu borom këram bëgg naa yombal xiyaam bu ma fa tasee ku ma bokkal commune mm. buñ naan keri dem mu naan ku baax la ku yiw la de ku tedd la ku ragal yàlla mm. comme li may dégg ci jamono yi rek mm. yàlla mën na ko yàlla na yàlla yàlla na yàlla barkeel seen liggéey aussi parce que gis naa li ngeen di daj pour amel kuréel yu mel li ngeen di def aussi pour lawal waxtaan bi ak jàmm réew mi am na solo parce que ngeen ci am responsabilité bu mag mm-hmm. yéen journaliste mm-hmm. lii defar réew mi da ngeen ci am taxawaay lii defar réew mi da ngeen ci am cër mm-hmm. lii defar réew mi cër bu mag a a ngeen ci am dem leen jàmm nit ñi ñu am jàmm ndax jàmm ci lépp suñu sang bu tedd bi suñu Abdou Lahad Mbacké daan na wax naan gën fii jàmm gën fa ñu jëm mm. yal na yàlla defal jàmm yal na yàlla def jàmm ci Sénégal def ko ci àdduna amiin